ju sell nag ju raxul dara bu mu am njàqare bu am tiis bu am natt bu am mbugal bu am dara waaw desal li ci sama dund mooy aljanna ju teey ju sell ju set wécc ba ba may tàbbi aljanna waaw loolu moom ma ma tax waaye ne dafa jiitu dinaa doon xoolee li ndax li des ci sama dund mooy aljanna teey ju sell ju dara xóojut sayidina muhammadin ali wa sahbihi fi lhaali wal ali wa adhibi shaytaana wal yàlla na seytaana randu te bu mu jegeeti ay pexe na randu te bu mu jegeeti mukk ci sama wet te nga fegal ma képp kuy boroomi pexe ak lépp luy pexe mu door caa teg nag waccal baqaa iya waccal بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة ما هذا سيدي سمو دول لب أجنة جسل بابا ما يدوب أجنة كم قال جنة مام تشال تشال دونا دار دك كتي خال بفيخ تلوب ديالا آه، خال بفيخ تلوب ديالا خال بلير بسط amul noonoo kenn amul jàppal kenn dara amul rëy amul añaan amul njëstal nga xam ne sa xol daal jëm yàlla rek ci nekk ni yàlla def jaamam yëpp neex na la waaw fii ne aljana jën gën a kawe fexe ba sa xol yéene kenn ab safaat nekku ci waa nga di ko xalam boo ko defee rek yaa ngi ci aljana waaye bokk na ci sawara fi mu ne iñaane nit rawatina ko yàlla di yëkkati nga di ko añaane foo tol ci xol bu tàng rek day dëkk ndax ka nga añaane waxtu na yàlla di la wan ne maa ngi moom ànd sab xol di gën a tàng ndax yàlla da koy bett ak mbetti tawfeex ak mbetti xéewal te mbett doon xéewal moom moom njàqar lay doon ceew ak mettit ci sa ndax kañaan a tax ndax yéenewu ko te boo soñoon loolu dañ te yàlla fasut li fasut lay bëgg-bëgg suñu borom ci moom mooy tawfeex di yokk rek waaw boo déggee yonent bi salaa salaam na ne añaan day lek jëf ju baax ni sawara di lekk matt fi ne ki añaan génn jëf ju baax du ko mën a am ndax du xol bu tàng rek lay dëkk waxtu ne yàlla defal na kii nangam nga do lu tax defal na kee nangam nga ne lu tax melal nangam nga ne lu tax dooyam ci lu tax waaye nga ni ngay fas sa xol yàlla ni tawoon du am nangam yàlla ni tawoon lam am nangam dugg doo yem ci loola ci sa xel sax nga dem bay wax ngir loola loolu lépp xam nga ci musiba la waaw musiba tudd sax waaw waaye ab jullit moom li ko war a wax wu ne mooy fexe ba xolam du ci ëmbal kenn du ñaaw làmmiñam wi di ci wax kenn ab safaan fii ne boo ëmbalul kenn lu ñaaw jàppaloo kenn dara rek yaa ngi ci àljana ndax da ngay nopp dangay ngay féex da ngay dal waaye fii ne ak noonoo bu la nit noonoo sax bul ko noonu yow ko ndax fii ne la nga ko bëgg jàpp dara ci sa xol jëmale ci moom rek dalay fatt dalay tongal dalay sonal nit hmm. baaxut fexeel ko yow bu dara ne ci yow waaw loolu maye nag bokk na ci sababu ca nga am yaqin ju wér kéng kéng kéng ni yàlla namm ci man añaa nag wax man di def bala maa génn adduna xéewal gu yàlla bind danaa ci ngir man hmm. xéewal gu yàlla dana agsi ci man te danaa ko jariñoo ku ko man di yor hmm. danañ daje ba mu ma Hmm? lu yàlla namul ci manit kenn mënu ci daan hmm. lim na namm ci manit kenn mënut a dox sama diggante ak loolu waaye ci manit loolu bu leenee ci yow rek dana lay dimbali lu bare bare loolu bu leenee ci sa bopp yi noonu ne war a leera ci bindiib yàlla yi ci li sa yëpp kum doon ci noonu la yàlla namm ci moom benn jaam mënut a dox diggam ak loolu nag boo gisee ñuy wax tarbiya لو رك الفوف رك لين بعدين ميرا فا جولي لو على تك نيو دي سنتا نجولي إن الصلاة تانزا إن الصلاة تنهى حال الفحشاء والمنكر جولي داي ترى يينو يو يين أبصران داي ترى وح أبصران داي ترى يو أبصران أبرز ما يلاد الفحشاء والمنكر ما يبصران داي كل جولي لو على تك نيو دي لو كده فلو woor loo tax ñu dina ko def na tudd yàlla looloo tax ñu dina ko def mm. waaye ku la dàq tudd yàlla te bu xoolee gis ca benn tomb mooy añaane benn jullit bay boobu xoolaat kursam mm. wala ka ko jox lam ko jox na ko seetaat waaye buñ la joxee tur yàlla nga di ko sikkal ñu di la digal nga yër ci sa xol ni man day yéene kenn ab safa nekkatu ci man añaane kenn nekkatu ci man ngistal nekkatu ci man wax lu dëgg nekkatu ci man yaa nga ci yoon wa ak foo mën a jëlee loola nag téyel te nga xam ne yaa ngi waaye loo bari bari bari am njàngkat loo bari bari bari ab sikkarkat loo bari bari bari ab naafilakat loo bari bari bari yeneen yu baax yi ci leneen lu ñuy tudde lu baax loo xam ci xeeti jàng ak la te tëriwut sa xol nga ci ëmbal ni ñi ab safaan di ko yëg wala am ak nga yëg ci sa xol ni ah jàllante woon boo ko am mm-hmm. nga ci sa xel ci sa xelaat ak sa xol rek gis ko xam fo foo ma nga course am tocc tocc rek waaye fu mu toll it ma nga deri nit ña fu la dikk daal fam fu mu toll ma ngay wor nit ñi ngir jariñoo seen alal du ko dikk daal waaw nit li koy jariñ booy tudd yàlla nay fóot sa xel ak sa xol ak sa ruux hmm. loolu yi kenn ku ci nekk yaa koy nattal sa bopp du seeko bi moo naan la yaa ngi toll fii yaa ngi yéeg ak yaa ngi wàcc ak déedéet hmm. sooyeeku bu naan yaa ngi yéeg ak yaa ngi wàcc yow dellul ci sa bopp nga xool ba xam yaa ngi yéeg ak yaa ngi wàcc ndax sa yéeg ak sa wàcc yàpp gën a xam ci jukk lay tàmbalee ci sa bopp yow te lool yow yàpp gën xam si lu ma la man de wax naan yaa ngi toll fii ci dara yaa ngi dugg fii yaa ngi génn faa xoolaatal sa jikkoy bopp yow ba nu noo def ak rëy ci bi ma la leeralee lan mooy rëy yow yaa ngi góorgóorlu ci ndigal yi nga jox boole ci nag di lépp lu xalaat bu dikki ci yow ci lu mel noonu nga ko dàq Hmm? loolu la jaam noonu ci xool xool xam nan laa demee ngistal ma man nan laa demee njëriñ nit ñi waaye boo toogoon nag ma naan la ah yaa nga ca asamaan ñaareel se say jëfa nga ca asamaan ñetteel si say jëfa nga ca asamaan juróomeel si nga sàngam nga xool ne yow mii maa ngi gistal say jëf fenn la demut ndax jëfa kuñ gistal du yéeg boo xoolee ni dara wéy ñu ceewit na la woon say jëf demut fenn dañ lay nax képp hmm. boo xoolee ni yaa ngi wax nu dëgg it na la woon say jëf demut fenn li nak bu dañee ak yow na la wóor xamol amna ci sa digënté ak sa borom subhanahu wa taala on lolu jëf lolu lay jarim bu wax tarbiya moy fexé ba toqi nit ki yar nit ki gannaaw mom la mayé san san ci boppam diggale ka tari di ko digal di ko tari lang koy digal moy lu baax lang koy tari moy subhanahu wa ta'ala yalla nak dafa am jëm jum doon am nak may gu ko yàlla may xeeti may yu bari ak yu wuute mi ngi mel ni adduna rek ñii gis nga ni leen ci yàlla cërale cër yu soree la ci diine cër yu soree la ci wàllu diggante jaam bi ak boromam am na lu yàlla may lu mu xam waaye cër yi ba tey yu soree la am na ñoo yàlla may na leen booy déglu seen kàddu te di ko teewlu danga yëg def ci yow ci sa xol kenn du la ko ko am na ñooñu it yàlla may na leen it bu ñuy wax safaan it muy jeexital ci yow it ba tey it yaa ngi yëpp fi nekk nag mm-hmm. ndax awliyaa ullah am na awliyaa shaytaan waaye lu mu ca doon rek nit ki daal ki nga ki ngay àndal muy jeexital ci yow te jeexital ba diiw kooku mat nay mat nay jataayal mat nay toogal ndax wala tujaalis xayroon bi tusaat diinan wa xaqalan abadan anam waaw loolu mooy tax nag gën a góorgóorlu bu baax ak it gën a farlu adduna moom ku ne sab dox jëm ci yàlla boo àndeek nitu yàlla nun dongo yi bu nu àndeek nitu yàlla na leen xool sunu bopp ba xam ne waaw lun nu man di wax nan xool sunu bopp nun ba noppi yàlla moom la ca gën a wér gën caa wóor jikko ju rafet foo ci man di àgg fa lañ bëgg nga dellu si martaba boo mën a yegg daraja boo man di yegg innama boo xis tuli utam mi ma makkaarimal axlaq jikko ju rafet moom la yàlla gën a bëgg ci jàmm sa bopp nga bëggal ko bindee fi yàlla yi yéeram ñëpp yiir ñëpp suturaan ñëpp te jëm yàlla rek tax yàlla nu ci yàlla dimbali nag taw feexal nu teg nu ba mu ci tegee ba noppi mu taw feexal nu ak sax te musal nu ci seetaani te musal nu ci ndog ak pakk ak musiba ak balaa te defal nu mujj gu rafet ndax ak mujj dong nga am solo nag tàmbali am na solo de waaye ak mujj ci li lépp nekk yàlla na yàlla def sunu mujj ci aduna di mucc gu rafet bu dëppoo ngërëmam lu dellu ci moom ci ngërëmam tasar dani defal sama làmmi moy sax ci di la di la tudd hmm. nekk sama xol xam nga nit dani tuddu yalla ci ay turam diko tuddu rahmatullahi alayhi serigne Sambay hmm. daana wax ne sun sun sañ Tuubaa day tudd yàlla di tudd yàlla di tudd yàlla ba suñ borom di ko wax ne allahu akbar yaay sama dëkkandoo mm-hmm. te suñ borom moo wax ni wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mm-hmm. yàlla moo nu gën a jege suñu buumu xol mm-hmm. xam nga moo ne man dëkkaale naag yàlla fii ne mën na rii ci nit ñi lool te moo ne yàlla moo ne no maa a jege seen buumu kon mi ngi dëkk di nu ñuy def ba kiiraay loolu dagg foofu mu ne na nga sama làmmiñ bi lu niki it sama xol naw mi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayan tuurisil xikama ay nelawam sax nay tudd yàlla ci làmmiñam niki xolam waaye bu tud di dallu sax xal bi yu dabbiru ayan tuurisil xikama ak ak nelawam sax jaamu yàlla وحينه كانت تنام وقلبه وحينه كانت تنام وقلبه لم ينم مرايكو سانغام تيرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ñu ne laa bëtam yi day danay nelaw waaye xol bi du nelaw mukk na nga def mooy sax ci di la tudd ci sama làmmiñ niki noonu it sama xol nga xam ne mën naa bañ a yorob téere mën naa yorob bu yorob kurus waaye xolam waxtu wu ne mi ngi ak boromam subhaanahu wa taala mu di ko dund di ko yëg ci lu nëbbu ak ci lu feeñ yaa mughniyan bi dafihi yow mi nga xamante ni ci sag doñ doyloo naa ko wadis di jéem a joñal sama bopp dara sag ñoddi it naa ko wadis may jéem a ñoddi sama bopp dara ni mu waxee ca feneen ca wasilatu Ma'nam jaay na sama setantal ci si biir sa setantal loo ma la rek noonu la bi sallallahu alaihi wasallam wax ci hadithul qudsi ne sunu borom nena. Jam jaam bi nga xamanteni jaamuma ak tudduma ak fatlikuma soxlaal nako wa waris mu dima ñaan dana ko defal lu gën li ma defal ñi nga xamanteni dañu dañuy seen loxo xam nga yalla nun ñi kenn ku ñu ne xam lu ko rek hmm. man kana lillahi kana lahu lahu loolu fi ne ku ko dund rek xam ko yow li nga koy ñaan lépp xam na moola moo moola sàkk la bind moo la melal moo la kàtt na la te mi nga ànd ak yow te moo la gën a jege sa buum xol kon bala ngaa xalaat sax xam na xalaat bi wàcc wàcc si ci yow bala ngaa bëgg xam na li ngay bëgg bala nga xoo boo booy wax mi dégg na ko bi nga ko xalaatee xam na ko li nga bëgg lépp xam na li gën ci moom moo ko xam ndax fi ne toon nun ñi tey mën nanoo bëgg dara ta xamuñ ci liñ bëgg dara liñ ci xamul. xamuñu saxaar la ci ñun fu mu ñu jëmee xamuñu fu mu ñu jëmee. daal bëgg doomu bëggu doomu aadama la ñuy def. fekk yàlla na fi ne kenn ku ci nekk xam na la gën ci yow. te loolu ñun ñëpp suñ biiru dund mën nañ ko cee xam. mën ngay bëgg dara ba teg ci sa bakkan defe ni lii moom bu ma ko amoon rek sama affaire baax sa mbir yëpp baax. fekk déedéet. amaana yow loola ci la sa bakkan ne. amaa yow loolu mbugal la nga ci biir moo xamante ni yow xamoo ko te loolu lépp suñu borom mën na ko wax amaana lii nii maanaam yow dafa rii ci yow rii sa bët waaye fekk lam la fàggul dencal la ko moo gën yow lii nga xalaat ak lii bala nga ko xam nag dalaa rombale lii ba nga naan ah ay man ma amoon lii ay man lii ay man laa mu teg fi sa kanam loola fàtte loolu dootoo gisal nga ni leer man kat ndekete yoon yi suma ji sóobuwoo ndekete du baax te kat defoon naa ni nangam nangam loolu yëpp xam nga suñu borom moo ko xam moo tax nag lu set boo ko joxee sa boo boo dugalee euh, boo ko doyloo ci set sa njàng ak sa ñoddi taw fekk rek waaye nag daa fekk nag mu jaar foo xam ne nag ah man man chàkk fii saalika fal yu jarri bi waaw kuy sikki sàkk moom fa ma aw rek ah iseen seet ba xam da nga mën a soqi benn jéego boo yëkkatee tàng ndax dana mën a teggem déet Lolo tax mo fofu la kan mo tax suñu borom defal ko lolo mu ñaan suñu borom ak joño mako ñoo dem dal mom yalla mu doy lolo la wadis mom di jema ñoo dil bokkum dara wala di jema a ñoo boppam dara fi na waxtu ne la gën rek la ko yalla di defal waxtu wu ne la gënut du du mbedd mom aw sax du fa du du fa waaw léegi am wax ci ci ci saa béy. tey murit boo xam daal yàlla dogal na nga dajeeg buntu bu ni maam la xeer. te bëgg yegg nag fa fa saa maanaam bëgg yegg daal fa a doon daal sa. waaw boo war wala. maanaam saxaaba yi dab leen ci jëf kenn mënatul benn jaamu yàlla mënatu leen a dab ci jëf ndax fañ jëfe woon moo amatul maanaam waxtu woon doon jëfe it moo jafe waaye nag coobaree suñ borom nag ak ngëneelal yàlla mën naa yéegal nit ci daraja yu nit mën a taxaw judut ab yonent ak yonent sax fii ne daraja yooyu yàlla dana dana ci yéegal nit ci coobareen ci ñaanu ak yonent ndax ku ne xam na ni yonent yàlla Moussa sunu borom daf koo may ci ñaanam yonent yàlla Haruna di ab yonent saxaaba yi nag fañ jëfe dab leen ci jëf moom coobare suñu borom ak ngëneelu la yàlla di yéegal lay doon ndax kullun mina saalihina jooju sëñ bi laa doon wax ba wax ni foofee ku yàlla moom comme ni boo defee naa nga ma dugal la fa loolu coobareem la am na feneen fa alxuraan di wax ne fa ulaayika ma allisina anama allahu alayhi min annabiyiina wa siddiqiina wa sohadaa wa saalihiina wa xasana ulaayika rafiqa la ko jiitu mooy ko topp yàlla ak yonentam ci toppin mu rafet yàlla da am loolu yàlla mën na ca yéegal ay nit waaye jëmmi jëf ji nag na mu tëdde woon mu tëddewaat noona ba nit ki man ko looloo yombul xaw ba ñu xare Badar ña ca teewoon nañ joxe woon seen alal joxe seen jëmm ngir jëm yàlla bàyyi seen lépp ngir jëm yàlla te muy dëgg ci ñoom xam nga fi mu ne nun ñii ñëpp war nañoo xoolaat suñu bopp jullit buy dox bu war ngaa xoolaat sa bopp ndax ci sa alal ci sa jëmm lii jullit bu ne war na ko xool doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi waaye yonent bi yàlla mi taxoon ñu topp ko di ko jaam yàlla jógu fi te du fi jóg mukk lépp luy jëmmal lislaam wala di ko jëme kanam wala di ko taxawal di ko yaatal di ko leeral ci bépp mbindeef boo xamante ni ma taxaw ca loola ban taxawaay ngay am ci moom yow ci sa bop jëm wala koo koy andal ci jëmmam ci jëmm yalla rek tax lolu dafa am solo ma ngi koy waxtane yalla dafa dogal lu bari am ci loolu dama ko fekke ci misal rek ci dama lay jox misal ci jëf yoy xam nga sëriñ bi fu bare bare bare ci coobaree suñu borom wax na ne sun borom sax ma ngi lay ñaan nga def sama khalima sama daag sama khalima mu melni ni bon ay di xeex ca Badar dareetu ñi ñi ñi sayid dareetu soxadaw yi xam nga loolu moom coobaree sunu borom la mm. ndax wallahu yaxtasu bi rahmatihi ma yasha mm. inna al fadla bi yadillahi yutihi ma yasha mm. loolu coobaree sunu borom la digganteem la ak borom la loolu yàlla moom mën na cee nàddil ab jaam loo xam ne sax kenn mënu koo misaal ci dayam saxaaba yi baax baax liñuy kawe kawe liñuy mag mag liñuy sel sel sell li leen di yàlla di gërëm gërëm gërëm jaam beneen yàlla beneen jaam yàlla bu sob yàlla mën na koo dugal foofa ci coobareem ndax dañu innal fadla te loolu ngëneel la dajeeg yonent bi joxe sa jëmm joxe sa alal xam nga loolu ngëneel la tawfiq la te yàlla moon innal fadla bi yadillahi yu'tihi ma yasha yàlla mën naa yéegal keneen ku ko sof foofa xay te te fekk doonte fekk woo jamono booba dundoo jamono booba waaye fekk nga ak dund ga loolu moo ngi faat waaye yàlla yéegal ci ab jaam moom bu mu a doon du lu faat ndax loolu moom ci coobareem rek lay tabee hmm. ci yërmandeem rek lay tabee waaye dafa am léeg-léeg koo xamante ni fa muy jëfe daf ko léeg-léeg duutul yomb hmm. ci misaal Serigne Saliou bi ñuy nekk jàpp ndal dama dama damaa fekke koo xam ne muy Cheikh Béthio hmm. boobu Serigne bi dafa aajowoo soppi añ ci kër gi dégg nga am na fu mu ko doon sabab la wax moom sëriñ bi waaye foofu yàlla dogalul mu jàpp ni bi Cheikh Béthio dikkee daf ko nuyoo juróom-ñett fukki junni ne ko añ yaa ngi ñëw te booba la sëñ bi soxla woon ñeenti junni rek la te ñeenti junni dëroon na lool ca bis boobee moom mu ñu nuyoo ko juróom-ñett fukki junni boole ci lat sama woon mu bëggoon la mu bëggoon a soppi mu ne ko añ baa ngi ñëw xam nga loolu du rëy na de hmm. bett même bett sëñ bi mbett jooje mbett bu yéeme la bu taw fekkal mu sant ko lol ak cantam doy ko ñaanal ko lol ak ñaanam doy ko mu ñaanal loo ko dong yep lol kenn net li mu ko mako fekke a jenen sax ma demat ba fekke ci mujjug serigne bi boba ya naa ni ata ci doli ku mu genn aduna di wala lay wax la ma dem fa siara ji ak magal ñu bëgg magal bima ñëwé fi ma tok ni mi mm-hmm. ngi sóonu ni mom ñoo may def ci lal bi rek ma ngi toog nii kookoo ngi toog nii a aatu jaay yalla na yàlla ma yërmandeem ak leer ci mom ak ngeerumal yalla ak seen bi ci mom mi mm-hmm. ngi ni ko ke ma nga tok ni ab doañee nga def ni kooku mm-hmm. keroog la mu jébbali ci sama kanam man kenn nit lu ma milliard mag na milliard mag na ndax lam lañ lim ci toni ceeb lim ko ci diwlin lim ko ci suukar lim ko ci café ay ton la hmm. ba noppi ñeenti téeméeri million loo xayante ni kaas la mu yëkkati ko joxe nga xam ne la mu doon dugal booba duwaañ bi xam nga duwaañ bi li ma tudd li ko fa indee hmm. maanaam ngir signature sëñ bi la doon jël si la loola moom bi képp a mën a signé mu tax mooy tax hmm. xam ne ci moom la xam nga jëf jii de yi hmm. boo koy xool moo ëpp fuuf na lam hmm. ko rombe sax hmm. dafa bari waaye booba dafa daf daf fee fekk ay milliards bee nag moom dafa fekkutoon dara lu may jëm yàlla waaye tax jéggi wuute boobu laa lay waxee fii ne tey saxaaba yi nañ defoon luñ ci jubloon mooy yaatal lislaam rek la yonent bi sallallahu alayhi la yàlla bëggoon mooy yaatal baatab yàlla gën a yàq lislaam moo ne fii nu toog tey boo demoon tey Sénégal mm-hmm. Cheikh Mouhamadou Mourtala ñaata la tuubal mm-hmm. nga nga jël sëriñ bi ak ñim yar ak ñim ci toog mm-hmm. liñ dugal ci lislaam kenn xamuñu toll jumaa yi ñuy tabax ci jamono bii nu toll yonent saa sala moom bu muy dund jumaa yi amoon benn xubba du am xubba sax amutoon am mbaar la woon rek li ñuy tuddee jumaa lépp nga xam ne boo ko déggee mu booba am rek la doon doon nii ñu jël ay ay ay ay kii kokook ay ay ay xob ak tabax ko waaye ay xubaaki ay sooroor ak yooyu yëpp boo ko utoon léegi da ngay gis jumaa joo ay milliards lay doon waaye booba taxawaloon loola te booba jamono lu ne la laajoon waaye léegi gis nga ay milliards lañ ciy def kon jëf yi ni ma ne ko ni ma la ko yi ni mu tëdd loolu noonu leneen tamit noonu la demee waaw kay nga xam ne kii tey bi muy indi lii di ko joxe ak lam àndal boo fekk ne sëriñ bi aajowoo ko lool ba dem dee aajowoo ko doon ko sababu lii mu gàntal mu bett koog loola ci coobare sunu borom am nga loolu ndimbal la loolu sëriñ bi wax ne kat fi ne nitu yàlla da ngeen am benn jataay rek wala yenn jëf rek mu xool la ci bët boo xam ne daanaka day ba faaw loolu day yàlla topp na faaw ci mbaaxam ak yërmandeem donc waaye gis nga ci mujj gi nii tey kii li mu indi te sëriñ bi àggoon na ci ne ah joxe bi kat daa mel ni daa jiitu laaj bi. keroog bi muy woote liggéey boobu mu doon liggéey ne ah fukki ñaar ak ñaar ngi fi ñëpp a def seen biir kenn jëpputoon ni sëriñ Saliou bi benn million sax ndax te laata muy soññee ab liggéey dajale na ci addi yi ak liggéeyam moom. fukki milliards ak ñaar door a woon kon nag eh, kee ba muy joxe lee ak ci jamono bii kii di joxe lii sooy na saxaaba yi waxtu wañ jëfe ak nañ doon jëfe loole jëfe foofu moo moo yumbutu hmm. waaw ndax fii na tey Sénégal boo demee waxuma la sax ci ne ci keppaaru sëriñ bi waaye suñ mbokki kilifa yi diine ya ca des sax da nga ci dégg koo xamante tey masalan imaam ak mujjam lim tuubal ci li ay nit ci lislaam ci Afrique. Hmm. daana toog benn jataay doom tuubal ci mbooloo mu dul jeex. ci hmm. benn jataay rek tuubal ci mbooloo mu dul jeex. Hmm. loolu may suñu borom la ci moom. taw fexe suñu borom la ci moom. yàlla may fay waaw loolu coobare suñu borom la te te te génnewul jees yi <laughs> bëccuwul gobar hmm. dutul leen hmm. waaw ni ma ko njëkkee wax ak Cheikh Mouhamadul Mourtala loolu ñu bëree bëri tuubal hmm. dugal leen ci lislaam jàngal leen yar leen toqi leen ci ban jam di te a tegaat ay nit ci yoon waaw te loolu yëpp àndut ak jeesi àndut ak paaka àndut ak len waaw waaye nag ñële nag fan doon jëfe meneen mbir la yàlla nag mën na faa yéegal nit ki ci coobareem ak ci ngëneelam waaye nag dab leen ci kem ne fañ jëfe woon ak nañ jëfe woon loola moom mooy li faat ndax circonstance yi ak bi na naylal maqaamaatil ulaa bi tayyi ah yaa ngi dégg ci ñaan yi muy ñaan ci xarafu basmala rek xarafu basmala ci la ñaan gim ci ñaan rek bi mu yegsee ci arafu alif gi bi alifil maxfi yi nang ma ci defal nang ma ci womatee nelal maqaamaati la wala bi yi ma am maqaama yi gën a kawe ci ak taxañ xam nga taxañ fi mu ne léegi maqaama yi nit taxañ ko nees mën a nangu la waaw suñ mag ñi buñ daan aji màkk lu ñuy def loolu dañ la daan wax naan dañ daan dox ñi mënut dox am mën a demu lu xewal avion bu yàggut la xew bootu hmm. lañ daan jël jaar si marché gi gii fi lañ daan jar si dooru wuti mooy Lorient ay weer nga daan def door a dem dooru ji léegi nooy def tey tey tey boo déparé woon Sénégal fukki waxtu doo ko def te wàccoo Jidda maa nga wàcc Madinatul Munawwara fukki waxtu nay lan ma xamaatel wala bi tay waaw mm-hmm. Hmm? tey suñ téléphone yi rek nga yelal ma xamante wala bi man man nga ko ci jàng. Hmm. téléphone amutul téléphone yi kañ la xam nga kii dem. waaw ku woon téléphone yi danaa dem ba am dong nga ni déedéet loolu mënut ta nekk. Hmm. wax ak nit léegi. Hmm. mu nekk foo gën a sori ci adduna bi ngay wax ak moom léegi déedéet ñu ne la déedéet yëngu leen ci di wax waaye ngeen di jàkkaarloo di xool. neenal ma xamante ne wala bi la jafe woon moo ne dafa jafe woon ñu njëkk ña lu jiitu woon lool. boo gisee sëñ Tuubaa naan defal ma loo xamante ni jafe yàlla defal na ma jafe woon nañu njëkk ñoom mu defal Mohamed loolu dégg ji lu yomb la fi mu ne nii dégg ji jafeetu lii nu am nii lépp ñoom njëkkoon am na ko boo li ma waxtaanee fii barki yéema soo su su nit masaa tukki nooy def ba jot ci moom bindub leetar am bi dem ca poste ba jënd tembor taf ci ñu ne la demal demal rox ko fee nga dem rox ko dem toog muy def ay fani fani fani fani fan leetar ba door a àgg ca kooka doo xam ne àgg na ca am ak gu ca de dégg mu jot ca mm-hmm. liir ko mm-hmm. di tontu la def ni nga defoon yow tamit mm-hmm. dem dugalaat ko foofa ay fani fani fani fani fan mu door a agsi ci post bi post bi ñoom yónnee la ko ci sa kër nay leen ma xamaatam wala bi tey looloo xewoon léegi nu ñu ndax kenn dana ci defati lool yoon woowu fi ñu raaj jaar kenn jaaratu ci boo gisee sëñ Tuubaa yoon yi jëm ci yàlla toll na ni nooyu bindee fi fii ne lu adduna gën a dem rek nit ki di ko gën nit ñi di ko gën a xam hmm. nooy def léegi <coughs> doo bind ci sa ci sa léegi bind nii léegi yónnee ko léegi kooko jot ko léegi. Hmm. ci loo xamante ne ay weer la daan am ki nga bind door a jot mu am weer mu door la yónnee nga door ca jotaat yooyu tamit léegi nag benn seconde maa ñaari seconde la ngay bind buy léegi mu yegg. Hmm. la léegi. Hmm? yëngatoo ci loolu sax waaye dangay bés léegi di jàndoo moom mu di la gis. xam ci li nga nekk xam ni nga toogee bi nit da daan jóge tukki jóge ci réew mi tukki kenn du la gis. ah daa mujjoon sax léegi da ngay fotowu say fotowu dugalaale ci enveloppe bi mm-hmm. waaw booy tontu lettre mm-hmm. dugalaale ci boo amee as ndërëm ak ñaar dërëm nga dugalaale ca yóbbaale su ko defee ñuy xool foto ay gore moom de mi ngi nii mm-hmm. bu bu bu dee gëjoon ngeen a gisee sax duñ la ndax bu dee ko mel ni ngóor séeréer nii la fekk na yëf yi topp na sedd beeg bagage yi jëfandiku ci jëfandiku lex yi gën naa jóg ba jóge ci dëkk ba jóge barasaan mel ko nii na lex yi jóg na bopp bi tawaar kàll léegi xaw naa leen as lëf waaw waaw boo ko dina ko bataaxal kenn du xam ni ngóor la waaw dañ ne xool waaw la sax ndax bu muy jógee ci dëkk ba mi du doon nii mu mel waaw nga xam ne léegi adduna lii xew ni mu xewee moo lay xamit mayut yàlla ci hmm. ci jaam kenn mun loo ndax yàlla it fii na xam nga daf noo bëgg rek hmm. moo tax mu dajale noog lii hmm. moo ne mënoon a koo dajale rek sunu maam yi ñu jiitu wala sunu sunu wayjur yi ñu jiitu woon waaye daa def coobareem ci ci mbaaxam ak yërmaandeem ñu dajeeg moom yi waaye benn effort bu ñu deful tax ñu dajeeg moom amul ñoo tànn suñu bisub judd ñoo tànn suñu atum judd ñoo tànn seekal bu ñu judd ñoo tànn ñu ni judd ñoo tànn fi ñu judd lenn lañ ci tënnu noonu la yàlla dogal ñu ñëw fekk fi lii hmm. waaye na mag ñu fi jóge ñoo xam ne ku leen yeewoon ne leen kat fii ngay toog léegi di seen waa béréb sàngam ñu hmm. nga xam ne kaaba gi bu hmm. aw foto moo la daan xamal ne lii la gi na am na lu ñu daan ku jóge Màkka boyet xaw ma boyet lañ ko daan wax xaw da nga ko ñaan la Kaaba gaa ngi nii ah yéen góor yi sax am na ci góor yooyu sax xamante loolu sëñ Babacar xam nga loolu yow da maa ngi fàttaliku bu baax bi sëñ sëñ boobu daa baaxoon lool sëñ Saliou mas naa yore yu mel ku ñëw mu jëla ko def yi xoolal waaw nga loolu lépp sëñ bi boo ko xoolaatee gi nag yow ca Kaaba ga ngay nekk nit ñi di la seen di ngi nii barab sàng ma ngi nii barab sàng ma ngi nii barab sàng ma ngi nii tey booy demoon fañ laa waxoon ne fa la yonent sallallahu doon nekk lépp ak fi mu doon dund lépp bari na ci loo ku ko dem na dayoo hmm. lii ma la wax naan la jàkk dafa nekkoon nag jumaa ji fa nekkoon ñun tuddi jumaa ji boo xoolee boo demee tey di ko yii def yëpp lépp ko naawam lañ ko def lépp yëgul la xaw lañ def hmm. tey masalan tey boo demee Touba ku baax ci bañ ko fay indi Touba foofu yi ñetti kër wala ñeenti kër kenn nekku hmm. waaw ne fiñ ko fiñ ko fiñ ko denc ab barage rek fa nekk moo taxoon seen tool yi doon borom barage yi. ba ni tàmbalee jumaa ji nga xam ne foo ko tënk ji fi ne moo ko feex ñu def ko ah xam nga kon béyu fa woon jumaa ji. te boo demee tey di yéem sëñ Touba fekk ak ñaanam la waaye ñu ko jëmmal Cheikh Moustapha. Cheikh Mahamadou Fadal ñëw ci Cheikh Abdoul Ahad ñëw ci sëñ Abdou Khadir sëñ Mouhamadou Lamine. Mhm. ñëw ci sëñ Sidil Maxtaar ma ca dolliwaat lu yéeme muy mhm. ñaare solo rek. Mhm. moom koy tàmbali ñu bari jàpp na ah, amoon na lu gën a ñor di amoon na ñu gën a ñor la waaye ñun sotti ñëpp xam nañ ni lii day mel ni takkaay ci waroon a doy waar. ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na yàlla guddal fanam te yëpp lépp nag ñu ànd ko njabootu sëñ Tuubaa yëpp ànd ko murit yëpp ànd ko jullit yëpp nag ba kenn ku mu ci doon rek da ngaa taxaw ca place ba mate ko ànd ak ñëpp mm-hmm. jox la seen jëm ak seen alal ba loola mën a jëm mm-hmm. ak it ñii ma tudd it ñi ma tudd ñi ci seen biir mm-hmm. xam nga léegi bu ñu nee Cheikh Moustapha moo tàmbali Cheikh Moustapha bi ñuy tàmbali di fondement da ko ànd ak Cheikh Mouhamadul Bachir xam nga léegi bu ñuy wax naan diwa diwa diwa diwa diwa te fondement diwa àggale fondement ki fondement moo ki àggale ñoo àndoon moo kañ tudd ñoo àndoon mooy sëñ Abdoulahi borom dër bi muy Cheikh Mahamadul Bachir. muy njabootu sëñ Tuubaa gépp. ànd koog Cheikh sëpp ànd koog ñëpp. ba loolu jëm ba fii la toog di ko waxtaan. tey Cheikh Mahamadul Mataxa li muy jëmmal lépp yoon yëpp ñoo bokk di ko jëmmal di ko jaarale ci di ko teg comme quoi te di ko def comme ci la koy teg. waaye tegu ko ci dara. am na loolu nag da koy teg ci boo defee nangam. Mhm. ma defal la nangam. Mhm. waaye am na ci loolu nag aju ko ci dara da koy def ci coobareem rek mi ngi mel ni nun ñi tey kii ci gën a adduna di nit defuloo ko sa bopp. Mhm. lan lañ defal suñu bopp tey lan lañ def ba ba suñu def nu ay nit. kenn mënu la ko wax. damaa jëf jëf ji tax suñu borom def ma may nit may doomu aadama. kenn du ko wax. coobare suñu rek la. fii na yonent yi li ñuy baax baax baax baax kenn jëfu ju lu tax yàlla def la ab yonent du ci kenn moo dooma ci waxal kenn coobale suñu borom a leen ko def hmm. ak ngëneelal suñu borom ak jagleel suñu borom hmm. am na daraja yooyu nag yàlla dafa am lu mu teg bala caa kenn yegg hmm. dangaa jaar foofu ci ay nattu waaye am na daraja yooyu it yàlla daf la koy maye ci coobareem rek ak ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci ndimbalam nit dana am loolu liggéey ko koy may am déet hmm. dana am loo xamante ni danga ko am loo xam ne liggéey may la ko hmm. sawaa jee këram nga liggéey may ko hmm. ah R plus un liggéeyam mayu ko yàllaa ko ko jox ci coobareem seet kam ko jaar la mu jox doon ci ñun ñii léeg-léeg da nga loo xamante ni da xam ne lii yàlla moo la ko defal ci coobareem waaye woo na ni lii ajuwut ci sa liggéey loolu dafay am léegi léeg ngay ngay wutandoog ay nit dara hmm. doo dàq jàng hmm. doo leen ëppum xel hmm. doo leen mag doo gën le dara moo xam lu mën a doon yàlla tànn la def la fa yóbbu la fa coobaree suñu borom la coobaree suñu borom la mooy tax ci wàllu yàlla yi fi mu ne am na daraja yooyu yàlla man na caa yéega nit ki te du ko jaarale ci yenn nattu yi ba loolu danay waral sax am loolu bu ko nit waxee nit mën koo weddi ndax lam xamoon mooy am na ci loolu moom fii rek la nit ki war a jaar ngir egg waaye am na ci loolu nag yàlla dana ko maye. ci coobareem ci ngëneelam jaam bu ko soob te jaar limu ko ci yenn fitne yi loolu danay am yàlla am na ci loolu ko koy jëflanteeg yow rek nga yëg ko xam ko xamin wow ak wow ku jawul fi nga jaar ba yëg loola xam loola du ko mën a xam du ko mën a dégg mukk loolu coobareem la waaye am na loolu daraja yooyu kat jëfa fa yóbbu nit am na daraja yooyu jagle moo fa yóbbu nit ak ngëneelam ak mbaaxam ak li war jaam bi nag mooy ne ca yoon wax tey séentu tawfiq xam nga ñaari nit tey mën nañoo sóobu ci aw yoon di dox nga dem ba ca kenn ki jiitoo loolu baree baree baree bare te ngeen di dëkk sànnam ah. kee moom moo la njëkk a jóg fuuf sax amaane dem na bay du dëkk ba sax waaye tam kër képp daje ko oto boo xam ne ma nga jëm sa dëkk du coobare nga ubbi dugg nga ne yàlla dogal borom oto bi mu taxaw la ko xiir mu romb kooku rek kooku di ah waaw lii te moom jaarut fenn kat. Hmm. doxul le hmm. coobare suñu borom la te dox na ba ñàkk. amaana bu fekkonte ne dañu leen yéen ñaar kër ku fi njëkk. Hmm. am na luñ fi teg loo xam ne nii ku fi njëkk leen moom la yàlla dogal muy jot ca loola. yow da nga fa dem ba jot ca. amaana sax yow nga wàññeeku waat sax fan ba ñu gis ci kër gi ci sa waay àggu ci ah. kuy def loolu. yàlla suñu borom rek moo koy def. fi nag kenn ni ma wax léegi rek kenn gënewul adduna. ci nit yow may jur nii laay juddoo nit laay doon coobare suñu borom rek la leneen lu nit doon it leneen lu keneen doon wala lu leneen doon it coobare suñu borom rek am na lool moom yàlla ci coobareem rek ci la koy def am na ci loolu nag mën na ne ah def leen nangam ku def nangam kat amaana lee ma defal ko nangam su ma soobee ndax kat laxal la laxal lahum ala ak laxal lakum yaatu na lool ndax lee ngeen texe ak ndax lee ngeen am nangam ak ndax lee nangam waaye loolu yëpp ba tey ci coobareem dong la teg tegul du leen yàlla ñun ñëpp mën nañoo bokk di ko jaamu ba mu géntal ba mu jëlenu fi loo ko soob ci noonu mu def ko te kenn du na ko da. tax noonu la ni laaj waaye yàlla moom kenn du na ko lu tax ndax buñ ko doon wax lu tax bërki démb fii ci bande de Gaza noo ngi naqarlu ak a méttu la fay la fa la fa am te di ñaan la def fa jàmm ak tawfiq liir boo xamante ni biñ bombardé lir bi bop bi dafa dagg xar liir la liir bu mu def lan mooy bàkkaar ah loolu lépp da ngay gis ni coobare suñu borom it fii ne fu muy dugg léeg-léeg day maasale lu ñu ñëpp day mel ne taw rek waame fii ne am waame buy taw du ni fii fii lañ ji gerte dugub fii doo mu lay def diir mooy gaa fépp bay taw day taw ba indoon def foo xamante ni sax ñoom soxlawuñ sax am ndox ndakaaru xale na foofu soxlawuñ am ndox waaye buy taw buy sax ñuy foofa sax léeg-léeg fa taw bay gën a bare te taw foofa am nañu maral la maral la maral seeni tool maral ba sonn te soxla ndox te sotti lu leen ko. dem sotti ko te ña nga xamante ni dañuy indoon te soxlawuñ ko seen i bagage ak seen lépp di yàq. lu mu doon coobare. Hmm. ah ngeen daal ak coobareem yàlla nay doon ci noonu ba faaw. Hmm. taw feex ak jàpp na. waaw hmm. xéwal ak mucc ak sutura. ak te lu man de am. yàlla nañ sax fi yàlla suñu borom yàlla sax ci di ko wéetal sax ci di ko jaamu tam nangul noonu yàlla buñ gis sunu bopp yàlla buñ gis suñuy jëf yàlla nu defaral suñuy xol bu bindee fam yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp aw yu rek lañ leen di ëmbal jàmm rek lañ leen di ëmbal xéewal ju sax dàkk yàlla na ko yàlla boo ko defal ñëpp te defal ñu boo xam ne ab la woon ci bañ ko buñ ko doon wax masalan tey ma doonoon suugëb Seex Babacar nii tey ci kër ma doonoon ab surgaam di xëy di liggéey ci kër gi di liggéey di liggéey di liggéey di ba li ma war a def ci kër gi lépp ma def ko ba mu mat ba ñoom ñu far fekk man sama léegi ñu ne le ma ubbi bunt bu ndànk di dox di ci dox di dox di dox ba ca parc ba ma toog fa yor sama kurus teg sama sajaada su ma neexee laa ba noppi jàng sama alxuraan def samay listixfaar di tuddu yalla ba nga xamanteni japp naane fajar ga xarna ba nga xamé dal waxtu bi ken bu may ñew da la fekk ñoom duñ jogugul ma ñew ndank ubi wat buntu bi ndank tok japp sama jàpp nga xamni ne dund naa ay ati ati te ñoom ñu ko bis rek mu mu yewu ci guddi gi rek xol xol xol xol xol gisuma muy top sama tank di top sama tank di top sama tank di top sama tank ba ca barke ba bam ñëwé ci park ba fekk may na fi ak julli ba nopi ko waaye bima gëss so yam ci mom rek xam ni gannaaw sama ak yalla mi nga xam ne dama cee fiira fiira fiira fiira fiir bu ma soñoon limay may ak mom ak di ko jëflante ak moom benn mbindeef du ko yëk kérok la ñaan sama borom faatu ya saahiba sirra inna sirra qad tahara wala uridu hayatan bahdama sahara yow kat secret bi ma amoon ak yow di déggante ak yow mu neex lool man ak yow rek gannaaw tey jii benn jaam dugg na ci xam kom bëggatuma dugg dana xaacoo rek fàtt loolu mooy ñi doon dund yàlla dëgg noonu lañ ko doon doxe waaye saamaas gi yëpp bala ñoo am jàmm fuñ toog nit ñi xam ne day sikkarkat lañ fuñ toog nit ñi xam lañuy jàng ci alxuraan fuñ toog nit ñi xam lañuy jàng ci xasida fon tok ñi xam lañuy def ci lu baax te ñu jublu ko ca diko ko bànneexoo loolu ngir sa rek lay doon ci lu baax waxu ñu nak lo xamne nit nit ki da koy yëg ci lu dul yow nga diko wax wala yow nga diko sap wala yow nga diko ko sabab loolu waaye day lo xamanteni te nit ñi ñoo koy seen bop ngir woné lu baax ndax ci jamono bi ñu tollu kat gannaaw ñi am ab safaan ñëpp ñu ngi koy wane di ko yaatal lu baax mat na yaatal waaye doo ci jublu nag njistal day mel ni ni sëriñ bi jàngalee ne nit ki jaamu yàlla di zikir guddi su muccee ci njistal mën na koo béral su ko wóoree yàlla rek ko tax ñu def kenn taxu koy def mën na koo béral ngir keneen roy ci mu am yoolu jaamu gi muy jaamu ak yoolu ki ko roy ci yàlla boo ragalee ni nag man kat saa su ki yëgee ni maa ngi zikir mbaa wala maa ngi nafila ma gis dara ci saa bopp. Mm. nëbbal na nekk sa diggante ak sa xam nga léegi la ngay gis koy def lu baax su màggal jubee masalan tey nit ñi addi yi ñuy joxe ci kër Serigne Seck. wala wut màggal sax bu dee gàmm la bu dee yeneen yu baax yi ñuy def yëpp da nga gis léeg-léeg nit ñi di ko filmer ak a wari waaye man danga wax nit ki bala nga ko àtte ci jëfam na xam yéeneem ci jëf gi hmm. xam nga man tey am na ci man danaa gis nit di ko def ma gis ko mu neex ma ma bëgg ko mu xiir ma ci lu baax mu xiir ma ci ma jëf ko hmm. te fekk man sama xel ëggutoon foofu waaye gis gi ma gis loolu moo tax sama xel àgg ca hmm. bu fekkente ni kooka doon def loolu lam ju jublu woon ci ñu di ko wane mooy nit ñi xam lu baax lii ni koy defee ngir yàlla nit ñi man ko cooree ngir yàlla mu gën a yaatu gën a baax loola kooku njistalu lu baax rek la bëgg day yaatal lu baax ak ngir nit ñi ak maa def lii ak ñii laa toll ak ñii laa day loolu déedéet loolu baaxut du noonu mooy tax man yooyu yëpp bu nit ñi def nga naan lii wëru su ta wane léeg lee wëru su ta laa man daal bala ma caa àtte kenn day fekk ma xam moom lii def fan la ko teg ak lan mooy yéeneem nit bala nga koy atte ci melokaanam ak waxam ak jëfam xamal lan moo nekk ce gannaaw jëf ja ndax innamal a'maalu binniyaat mm. li mu jëf lan laa ci yéene te nit ki li muy jëf bu la waxut lam ci yéene mënoo koo mm-hmm. kon man du ma kenn ci loolu soo waaye nag lii sañ ngaa wax nag ni ni niñ jàngale li téere yi jàngale nag ku ne sañ na ko wax waaye àtte nit ki ci ay jëfam moom kooku yàllaa ko sañ ëllëg mm-hmm. ndax yéene jë yàlla moo ko xam mm-hmm. ak moom toog fi ne man naa am ku ne ah waaye diw mi moo bari wax moo ko fekk day wax rek xam nga loolu lépp mën naa am fekk man ñu toog di wax xawma ndax suba dinaa fanaanam déet te yéen ñii lii may wax ak ñeneen ñi mel yéen te bëgg lu baax yéen koy jariñoo di ci dolleew ci li ma jàpp am déet man xawma ndax dinaa fanaanam déet kon man fi ne lu nekk ci lu man man ci moo moo ko lay biir nit rek waruma ko denc suba waruma koo denc xaar ginnaaw suba mm-hmm. ndax suba yàlla rek ko xam sëñ Fallu dane woon tey rek la waaye tey tey tey tey rek la suba weesu na mm-hmm. démb weesu na suba diko ko kon tey rek la mm-hmm. lépp tey man lu ma mën di séentu wala ko sumb wala ma di ko def dee laa jiital ca loola loola door caa tege kon fu ñu toll rek li nu war yéen fan ngeen jël ñaata kilomètre ngeen dox door a agsi fii lan moo leen tax a jóg jëm yàlla hmm. lan moo leen tax a jóg ci melo ak ci jëf ak ci kàddu hmm. te jëm yàlla rek tax hmm. buñ delloo suñu xel di nekkal wala waxtu na mu ñu yokk yi te duñu yokk ak fam waaye fii ne ki yëgul dara ci yàlla moom lépp lu ñuy wax ci yàlla da koy fat ku dund yàlla it lépp lu ñuy wax ci yàlla da koy fat waye ci bëgg yalla fuñ koy waxtane du doy ci mom mu ah am na ñu di ab auto bu rafet rek lañ am buñ sañon fuñ tok ñuy tudd seen auto ay du auto du auto oto bi nga ne xaa du auto bi diw oto am na ñoo xam kër gu rafet te buñ sañon fuñ tol di ko tudd ndax noonu lañ bëgg buñ sañon nit ñepp dañ koy tudd ah diw day kërëm diw day kërëm dëkk bëpp bo sañon diw day kërëm diw day kërëm diw day kërëm ah diw day portable diw day portable diw day soxnaam si waaw buñ luñ ko tudd doyut te bu ñuy tudd yàlla doo ci bëgg dara yow maar di tey xol bu dee ko xol bu woo ko te li nga bëgg ci àdduna lépp luñ ci tudd do ci doyal yàlla mi la bind bind loola taw fay xal la loola buñ koy tudd ngay fàtt wala yàlla yàlla na ci yàlla waaw mandargam xol bu dund ci loolu rek lees koy xamee ci tudd yàlla ci jàng alxuraan ci fàttalante fuñ koy defé loolu do koy bëgg fa taw waaye fuñ koy defé nga yàkkamti wala nga fat ah war na xoolaat suñu bopp waaye ku ci ne la bëgg ci aduna luñ ko tuddu doyut ah, sa auto ba rafet am na ñu ko tuddu doyut sa soxna sa rafet ci luñ ko tuddu doyut sa kër gu rafet bi luñ ko tudd doyut ah jiw montaram bi xana dëkk mom doom dong nga ko fi ànd ah jiw téléphone bi diw këram gi diw nangama gi nga ah, kon benn dong la fi waaw rek lay ñaar ko fi am léeg-léeg ñu ni wéréb sàngam ñaar ko fi am hmm? yàlla mi nag bind nag bind loola boole la ak loola mënoon la koo xam te xañu ko ah sant ko rek a ca Mm-hmm. kookee nag moom mat nag fu ñu koy tudde mm-hmm. ak a waxtaane doo ca doyal mukk mm-hmm. ndax mooy des yii yëpp desut daa am ci ko jële indi ko ci yow da koy jëlewaat ci yow delloo ko ci keneen te dénkaan dong la waaw ni mu la ko joxe ni la koy jëlewaat da ngay fexe nag ba lu nekk fi yow rek nga gis ko ca moom yàlla na yàlla dimbalee noonu ba lu ñu dund du ko ca lu gis ko ca lu jël jëm ko ci mbaax dimanche bi bi ñuy jokkoo ma naa la yàlla dogal na biye bari mujj na jàppandi. waaw yëpp timis dara naa la suñu timis ko yompanteeg yooyu. Hmm. nga ne ma ah maanaam jar na day bëtt ay daw ay montagne dama fàtte ngir ngir fekke si ko. waaye sànq bi waxtaan sama xel ci loolu dama ne waxuma sax bés ba. Hmm. yéegi ñu bés ba bi rek. jar na daw ay montagne ngir ngir teewe hmm. ko loolu sama xel dem daal ndax yokk gi fi yokk ay xam naa la la la waaja melan ni man ne moom ca marché ba daal day day day day woyof tooyu daal waaw te wax ko xaw ma. ah waaw waaw sëñ naa ko dañ dem ci yeneen bi. sallallahu xam naa ne man moom yëg naa ne naafaqa xamsa la. moom loolu yëpp moom la. waaw kay ma damay ma marché bi rek su ma fi jógee damay kii rek mu ne ko nañ dem keneen bi waaye da ngay gis ne jataay jataay bi daal wax dëgg yàlla ku fi teew daal sa sa di moom kay laxasaay gi daal da nga xalaataan gën lool. ndax da nga yëg loo xam ne da nga daal da nga ko doon ñëwaat daal. ñaan suñu borom gën leen a rek. mboolem yéen a jëg naal yëpp suñu borom yàggale ko.